bu nit ki teunké bopam ci digënté bobu lu ko yalla digël mu def té dootu ci jëfé am xélam di tan lu ko arranger wala ko lu ko arranger wul lu ko tere mu bayyi ci bobu la nit ki di dooro tuddu ab julit kon julit moy ku jël leppam rek dundam gëpp jox ko yalla loolu alquran di wax naan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kon fi ay bi won nañu deug deug kan moy julit non itam la sunu borom tabaraku taala di waxe ba legi ci benen ay nan kul inni umirtu an a'budu allaha mukhlishan lahu din wa umirtu an akuna awwal al muslimin kon alquran mom ta'rifan nañu kan moy ak julit moy ko xamni ak jaamu yalla ak jage jegelu yalla ak yar ruuxam ak dundam ci aduna dundam ak fatom lepp da ko boole def ko nu sey tak ko jox ko borom bi loolu la ñuy tuddaan al islaamu huwa al istislaam al istislaamu lillahi jël sa lépp jébbal ko yàlla lu mu dogal ci yow rek nga nangu lool mën nañoo jiima xam kon ban relation la jullit am ak diineem diineem relation bu mel ni buñ ko doon misaal ab citoyen ak patriote maanaam nit ku ne ak réew ma nga dëkk Euh, nit ki lu mu mën a tànn ci diine lu mu mën a góor góorgóorlu ci xiifal bakkanam walla boppam tàggat bakkanam yar ruuxam jege-jegelu yàlla def ay sacrifice mooy di rey di saraxe te dëppalewu koog ni ko yàlla bëgge ci lislaam du tax mu nekk jullit kon ndeke lii tax nga tudd ab muslim mooy lislaam moo lay jox dafa mel ni lislaam mooy réew mi faw nga matale condition yi ba mu jox la ab nationalité nga door a tudd nag citoyen réew moo mën jox nationalité bi maanaam nekk ab julit wa man yabtari gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al xasirin kon jaamu yàlla ndeke ngir nga doon ab julit da koy jaar ci l'islam moo lay jox nationalité ngir nga tudd ab jullit maanaam nekk citoyen wu réew bu ñuy wax islam dañu jël ribaatu bu réew ndax dañ koy soxla léegi ci kanam diine jooju nag nga xam ne li suñu borom tabaraka wa taala nee na moom rek la tànn nangu ko jàpp ni moom mooy diine fa moom boroom xam-xam yi ci seeni gëstu dañ koo xaaj ñaari xaaj ñaari anam anam yooyu chatray ni lañ benn bu ci nekk dafay complété moromam benn bi munta dem bàyyi bi ci des soo amoon aw jiw lu mel ni fepp yi ñuy ji nga xar ko jël benn xar bi ji ci ko suuf si boo moytuwul la ci bëggoon doo ko am lislaam tam ñaari wàll la yoo xam ne benn du ci dem bàyyi morom ci loolu moom lañuy tuddee al ibadat benn bi bi ci teguwaat moom lañuy ñuy tuddee ay muamalaat ibadat yi moo gën a tënku ay sha'air la mooy lu mel ni julli salaa lu mel ni joxe zaka zaka lu mel ni saw comme ni ñu mel nii ramadan nga xam lu yàlla digle la moom bi nasul quraan yi lu mel ni xaj yooyu ak shahada ma leen jiitu woon pas-pas bi yooyu ay mbir la yoo xam ne nit ki daf koy def digganteem ak boroomam ñu di ko tuddee xaj na arkaan yi waaye mooy sha'air yi nga xam ni dafay yëgle te day déclarer ni nit ki ab jullit la bayyi ko sax day tax ñu laajaat ko remettre ko en cause taxawal ko ci kanam tribunal bi laaj ko ba xam lii mu bàyyi ndax daf ko weddi wala boog dafa am ngànt ba tax mu bàyyi ko wala ak réere moo tax mu bàyyi ko waaye beneen xaaj bi moo gën a yaatu mooy li ñuy tuddee muamalat yi muamalat yi nag euh, man naa tàmbalee ci birrul waliday def lu baax jëme ko ci ñaari waajur ba yegg ci imaatatul aza an tariq fekk luy lore wala luy gaañ ci mbedd mi nga toppale li nekk ci diggante bi lépp ci tarbiyatul usra fexe ba fege leen safara rafetal ni ngay dëkkee nit ñi sàmmal leen seen àq àq dëkkandoo yi nekk koo xam ni ku am li ñu dinaan wafa ubbi la ahd nga lépp di boo ak nit da ko sàmm maanaam melowoo bépp melokaan bu rafet bu taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan mottali jikko yu rafet yi moo tax inama bu'istu li utammima makarimil axlaaq loolu lépp ci diine lislaam la bokk bu ko nit kiy def daf ci jaamu yàlla am na sax lu gën a yaatu lu borom xam yi fuqahaa yu almuasiruna yi di wax mooy li ñu tuddee ibadatu zar jaamu yàlla kemtalaay waxtu wa nga toll ak man-man ba nga toll masalan ki nga xam ni dafa euh, soxnaam dafa feebar jamono bi muy taxaw ci faj soxnaam ak taxawu kooku la ca war ak jënd ordonnance yóbbu ko hôpital borom xam-xam yi dañ ni su ca fasee ak jàmm yàlla jàmm yàlla googu moo gën a ñor ci moom geneen jàmm yàlla guddul googu ki nga xam ne waajuram dafa tollu diggante sonn lool moo war koo xettali moom it assisté ko taxawu ko def lu rafet ndax sun borom tabaraka wa taala bi mu jógee ci boppam bi ñu denke ñu jaamu ko wa qada rabbuka la ta'budu illa iyya daf ci tek boppam ko bi walidayni ihsana kon ñi wara ndik samal ay digënté suñu digënté ñom ñaar wa ñaar wa ñaar waajur kon ibadatu zarf moy jamono ju ne la ni këtt ni jonn ci di lu neex yalla saf manam du safaan nga def ci la nga wara def en tant que julit ci fas ca jaamu yalla borom xam-xam ni nañ ci jaamoo yalla noonu moo ëppal yàlla njariñ ci kaw suuf loolu tax kon dañ naan ñaari wàll yépp boo ko boole majmaul amrayni yi mooy li sunu borom bi wax ci aaya bi naan yaa ayyuha alladina amanu rkaw wasjudu waabudu rabbakum wafaalu la laallakum tuflixuun waaye itam wa jahidu fi llahi xaqa jihaadi huwa jtabaakum wa ma jaala aleykum fi diini min xaraj ci aaya bi sunu borom wan nañu ni kon jullit dëgg-dëgg mooy kiy rukkoo moy ki sujud manam ki julli moy ki wor moy ki nat azaka ci sha'iri yi moy ki nga xamni fu mu tollu ci kaw suuf day def aw yiw liñ tuddee léegi ibadatu zan waaye moy ki nga xamni fu mu toll fay jihad jihad deug deug ibad bi maanaam moy def effort fo toll rek def effort su dépense jotee nga wut dépense su yar njabot bi jotee nga yar njabot bi bu taxawu soxna yi jotee nga def ko fo tollu di kër kër yi koko moy def juhd moy def moy al mujahid ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wane sax na ni ci beneen te xaj na mu ñëw ci waxtaan wi koo xam ni danga aar sa suuf man maata duuna ardihi fa huwa shahid wa man maata duuna maalihi fa huwa shahid maanaam li la yàlla jox ca nga war koo xéewloo ci kaw suuf loo ci doon aar ak sàmm sax ba sa bakkan des ci ab shahid kon loolu lépp jihaad la nit ki fi mu taxaw fu muy def effort te jublu ci jaamu yàlla rek mu ngi jihaad ci kaw suuf kon ay bi mën nañ ñi dafa ndar képp loolu lépp waaye nag ziyaada jullit dafa am beneen aqida bu mu tegaat ci loolu boo xam ni daf ko da bokk ci pas-pasam mooy dafay gëm ni moom mooy représentant wu yàlla représentant de Dieu sur terre c'est-à-dire moom la yàlla tànn indi ko ci kaw suuf te moom ko njëkkee wax malaayika yi dañoo opposé ndax wóoluwuñ doomu aadama waaye yàlla moom moo xam lu ñu xamut moo xam lu mu namm ci indi gi mu indi ci kaw suuf mu indi ñu fii nag jox ñu pexe waaye jox ñu nag jumtuwaay boo xam ni ñun ñoo ko baaxoo muy xel yàlla nag di ñu nattu na ji najdayn suñu neexee ñu jël yoon bu baax bu ñu neexee ñu jël yoonu yu bo bu waaye responsabilité bi mi ngi dellu ci xel mi ñu jox ba ñu amal suñu bopp capacité de choisir seet li ñu bëgg lu baax ñu tànnal suñu bopp waaye yàlla lim ñu bëggal ci kaw suuf lim bëgg ñu defal ko ko mooy ñu dundalal ko kaw suuf si moy ñu baxal kaw suuf lu fi bax ci suñu responsabilité lay del lu fi bon ci suñu responsabilité lay del li fi bon de nga ci benen ay suñu borom la xam naan zahara al fasadu fi l barri wal bahri bima kasabat aydin nas li yuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un ko nit ñi ñoy yàq bu ci yaq yaq yi catastrophe naturelle yu bari yu am ci kaw suuf dama adamay yi loxob doomu aadama génn ci kon yàlla moo ñu bind ba pare istixlaaf ñu ci kaw suuf def ñuy xalifaam ñu koy ñu kon pas-pas boobu bu ko jullit xasee gëm ca loolu li koy li ci alquran mooy lu suñu borom di wax naan wa iz qaala rabbuka lil malaikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun kon yàlla moo ñu indi ci kaw suuf ni ma ko waxee léegi dénkuñu suuf ku wut yàlla ci kaw suuf nag kon dafa mel ni mi ngi mel ni ku ñu dénkoon ak gétt soo sàgganee ba till jaar ci ginnaaw rotti ci ak def soo demee faw ñu laaj la liñ la sàmmuloo woon lu tax eh, nduxum wala leneen ab safaan dugg ci kullukum raa wa kullun mas'ulun an raayati waaye nag kenn ku ne li ngay sàmm mu ngi toll xadra liñ la dénk ni mu toll président de la république bi am réew lañ ko dénk responsabilité moo gën a mag bu ëllëgee buñ koy muxaasaba muxaasaba bu metti ci tar lañ koy muxaasaba ministre bi moom it moo ci tegu wala président assemblée nationale bi waaye ba ci gouverneur bi de la région bi ci la bokk ba ci sax ki jiite ab département wala ki jiite ab quartier chef de quartier bi walla sax ki jiite ak kër chef de famille nekk parent nekk koo xam ni euh, du dafa yar ak njabootam wala mère de famille wala sax membre de famille kenn ku ci nekk am nga responsabilité lu baaxal fa ngay dund ci jamono ba ngay dund ci anam yëpp responsabilité boobu nag ñi ngi ko natt kemte lay liñ la jox ci responsabilité ni mu toll kon jullit bi nekk dafa gëm ni diine jii ma nekk diine la joo xam ni diinun shaamil la mooy dafa matale dafa daj jubluwul ci wàllu jaamu yàlla képp ni ko yenn ci adiyaan samawi yi doon defee wala jubluwul ci jima équilibré loolu jàngal nit ñi ni ñuy jaamoo ni wala ni ñuy amee seen àdduna képp déedéet diine la joo xam ni dafa boole mbirum àdduna ak alaxira diine la joo xam ni dafa dajale lépp luy lu baax ci biiram maanaam wuruma wéet ci biir jàkka ji rek yor sama kurus di jaamu yàlla daal ni ab laa loolu mooy jullit bi gën déedéet Seydina Omar xam ngeen jàngale na ko ci mawaqif yi wuute wuute wuute waaye dangaa war a def boo génnee ci jaamu yàlla gi nag loolu ñu suñu borom digal sax bu ñu julli ajuma pare ñu tasaaroo ci kaw suuf nag dem kenn ku ci nekk la nga mën nga def ko testé si testé si mooy ki mën a toogi ca bureau dem toogi ca bureau ba ki mën a doon président doon dooni ko ki mën a doon ab baykat mu dem dooni ko ki mën a doon sàmmi mu dem dooni loolu mooy lislaam am na ci kenn ci mufakkirin yi nga xam ni ay mufakkiroon ay jullit lañ ay muslimuuna lañ te siiw lool ci alalamul islam yi ku mel ne xasun banna dafa tegaloon ay baat yu ràbbuloo yoo xam ne léeg-léeg sax ñu jox ci dara lu mu doon wax naan al islaamu aqidatun wa ibada watanun wa jinsiya diinun wa dawla ruxaniyatun wa amal mushafun wa sayf l'islam mooy diine ju équilibré joo xam da ngay boole pas-pas ak di jaamu yàlla doo pas li nga fas rek daal ni comme lenn ci mu'tazila yi li ñuy wax Pasti mandal man dal dumna yalla ca la dur aw la tadur ma al iman masiya déedéet da nga war bo gëmé yalla ba paré gëm yalla googu nak nga concrétiser ko manam jëmmal ko ak ay jëf kon aqidatun wa ibada watanun wa jinsiyya waxoon na la légui ni li tax nga tuddu julit amé nationalité bi moy nga matalé mbolém condition yi tax ñu doxal nationalité wu nga bok ci réew mi ñu tuddé islam lu tax watanun si jinsiyya nit ki fu mu mën a nekk ci kaw suuf bu buñ ko xatalee ci diineem dafa war a génn kon diiney jullit mooy réewum ñu njëkk du fa nga juddoo du fa nga gën a bëgg du suuf sa nga tàmbul sa bopp parce que diine xam ngeen ni sax mag ñu baax ñi seen diine lañ daan rawale moom lañ daan sàmm ak fuñ mën a yare doomu aadama yi man faa suqat diine moo foofu rek lañ dëkk daawuñu xool barab buñ dëkk wala buñ juddoo wala buñ cosaanoo kon watanun wa jinsiyya diinun wa dawla l'islam itam jaamu yàlla la ci biir jàkka yi waxtaan la jàng alquran la jàngalante ko la sayante xam-xam la waaye itam l'islam finance la gestion la lépp lu jëm ci wàllu xam-xamu man àdduna ak jekku ko la ruhaniyat wa amal l'islam dafa soxla kuy yar ruuxam ndax mooy jaanib bu ëpp solo ci doomu aadama bi ndax boo xësee faatu ba ñu dugal la ci biir suuf si ruux gi moom du faatu waaye toujours mu ngi ci xam ngeen ci beneen alam al alamul abadiya fa muy nekk ci barzaq ba bu muy nekkee ci bi bis bañ ñuy xasra ñu ñëpp dajale ñu di ñu àtte kenn ku ne bu la sa waaye ruux bi du faatu benn yoon comme ruux gi nag mooy dund faaw nga di ko yar yar boo tax bu ëllëgee nga mën koo mu mën a bokk ci ñi nga xam ne bu ñuy dajaleeg seen borom suñu borom moo leen di gàttalu ci yaa ayyatuha nafsul mutma'inna irja'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli jannati amal la mooy ñi ngay góorgóorloo ci jàkka jeeg alquran bi di ko góorgóorloo ci waar bi di bay bu baax a baax loo dunde ndax doomu aadama lekkut lu gën lu gën a law lu gën a sell ci moom lu mu ñaqal boppam lu mu liggéeyal boppam kiy bay daraja boobu la ci am tuyaaba jooju la ci am kiy menuisier di yàtt tuyaaba jooju la ci am kiy tëgg moom tam tuyaaba jooju la ci am kay def lépp rek bu ci seetee àqi suñu borom ji sàmmoonteeg moom ba mat sëkk te yore jikkoy jullit yàlla daf ko ci may yoonu kuy jihaad kon aqidatun wa amal wa mushafun wa sayf ku bëgg a atte itam ndax sayf mooy iqaamatul xudud lii suñu boroom wax ni lii ku ko def nañ la def lii nga xam ni ku juum dañu laa war a teg lu tolloog njuumte la nga juum loolu ñu ko tibbee ci alquran ku ñu war a neexal itam ci lu mu def ñu fay la maanaam ku jihaad ba ganaay ñu ñëw loolu lépp li lijjanti na ko fan lañ koy delloo fan lañ koy ndax dañuy dajalo rek daal ni dañuy créer sunu constitution sunu livre bo xamni dañuy wax dal fi lañuy def mboolem loi yi nga xamni ak règlement yi ñu atté suñu bop déedéet islam wul lool l'islam dafa maye suñu bëggee atté ñu delu ci alcorane ñi nga xamni sax dañuy atté wo ci leen dul alcorane suñu borom da leen a wu ne def leen di tekk ay fasiqun lañ ñu gëmadi lañ kon melokaan yooyu lutax ñu mérité ko moy liñ fi bàyyi def suñu borom tabaraka wa taala waaye bu ñu jëlee ci alquran ba xam ni lii mooy dëgg lii la yàlla bëgg dañ koo war a taxawal nag léegi mooy nag wax dëgg yàlla di taxawal sharia ci kaw suuf ndax sharia jooju taxawal gi ñu koy taxaw wala kum xosaas xayaat loolu suñu borom wax ci taxawal xosaas ci taxawal sharia ci taxawal luwaay sharia ci la ñuy mën a amee ci la ñuy mën a amee sécurité ci la ñuy mën a amee kaaraange ci la ñuy mën a amee dund bi tey kon aqidatul wasay al islam boo seetee kon ci baat yi nii mu tënkaloo daa mel ni benn bu ci nekk daa jël ñaari extrême loolu tax diine équilibre la maanaam diine ja loo xam ni du ëppal ci benn wet l'islam ëppalu ci benn wet ak yahudi yi dafa ëppaloon lool ci bëgg alal ak bëgg àdduna waaye gis ngeen sax ni ñu sonale woon sayyidina sayyidina Musa alayhi salaam lu ne laaj nañ ko ko lu ne laaj nañ ko ko ndax topp seen bakkan waaye gis ngeen bi Isa ñëwee daa mel ni moom li doon yitteem ci lim fi am ak fanamu gàtt yëpp moo nekkoon réparé lu mel noonu woowaat nit ñi di leen yóbbu ñuy dem ci jaamukaay jaamukaay yàlla yi di yar seen bakkan ngir di tàggat seen bopp lislaam moom bu ñëwee daa boole ñaar yëpp mu nekk benn santé loolu tax suñu boroom bi ñu wax naan wa kadalika jaalnaakum ummatan wasatan takunu shuhadaa ala nnas wa yakuna rasulu alaykum shahida kon lislaam eh, jaamu yàlla la ci lépp lu baatub jaamu yàlla di tekki waaye itam politique la ci biiram boo jëlee baatub jaamu yàlla gi di ko wutal delluwaay ci alquran côté maanaam defar roogi ak jaamu yàlla ci ay sha'air ay yu bari rot na ci mën nañ ci lu mel ni suñu borom bi wax naan wa ma umiru illa li ya'budu allaha muxlisina lahu ddin xunafaa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dalika diinul qayim boo jëlee lu mel ni politique mooy doxal ndax politique du dara lu dul ni ñu koy waxee l'art de bien gérer wala de gérer la société Eh, fexé am xam-xam ak man man bu la tax nga mëna saytu doxal doxalin mu mucc ayib société bi moy nit ñi andalo di dund nga mën leen organiser tek leen ci yoon wo xamni dana dund dund gu normal lu islam da ci jàngale lu reey reey reey xam nga ni Omar dan na di godone ay yoon jox bay joxe misal fak ay yoon yu wara jaar sécuriser ko fekk ba ku turuq turqi ñu dox seen digganteeg ñu jël alalu jambur nit ñi kenn ku ci ne sécuriser sécuriser leen bu nit ñi di nelaw sax muy guddi di dox di def di rondu mom ci bopam dawul def nak li ñuy coow léegi ay sorti nocturne yo xam ne nga genn xaj ngir sabakan ci gaw ak yaq waye sidna omar daf dan genn bu di veillé di xol ba xam da ndax danaan wax nan bu amone wenn tek bu fanaan all bo xam ab samam bis ko sax bu ko ak man sama borom dana ma ci laaj bu ëllëgee sama responsabilité man omar dan wax nan man ak yeen ñoo yem képp waaye nag dañ ma taklif lu ëpp li ñen leen kon responsabilité bo mo responsabilité état nit ki itam loolu la war a gëm dafa war a gëm ni pour mu attewu ci wàllu état ci wàllu gestion wàllu doxalin wàllu administration dafa war a attewu ci alquran loolu la jullit jullit moom en loolu la bëgg ci kaw suuf ca saa bu xëyee ba ngoon jot loolu la war di eh, di dox bi ci def kemtalaay kattanam ngir mu am